ba tey mbokk yi ñoo ngi dellu si ak yéen comme niñ leen ko daan indile ci seen site bi di Waarwi TV piir ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare du leen baalu àq te di leen bëgge te di leen jaajëfal bu baax ci topp gi ngeen ñu topp suñu site bi di Waarwi TV piir ñu leen di ñaan yéen ñi xam ne abonné gu leen ci seen site bi ngeen di abonné di partager vidéo yi te di ko aimé ndax yéen rekk yéen ñu fi bàyyi waaye nag tey jii ñoo ngi ñëw si secret boo xamante ni mooy wërsëg lépp loo xamante ni day dox ci wërsëg sa képp ku ko jëfandikoo comme nii ñu ko indee incha allahu suñ boroom dina la dole ay xéewal bu baax sa tamit incha allahu nit ñi deen la jublu bu baax a baax waaye nag ñu leen di wax ni laataa booba ñu leen di présenté ay kaaraange yoo xamante nii dañu koy liggéey ngir képp koo xam ni bëgg nga si am na ay ndombay kaaraange yoo xam ni ñoo ngi koy liggéey waaye incha allah képp ku si bëgg danga ñuy woo parce que fii la ñuy liggéey lépp nga soog see jot ba aw ko mais kaaraange la goo xamante ni ndomba lay doon day am juróom-ñaari bopp waaye incha allahu si kaaraange rek lay dox boo ko amee wax na ni de képp koo xamante ni jóg na di jëflanteeg yow dara si bon di la jéem a yàqal wala nit di la jéem a jàpp ngir di la jéem a tëj incha allahu kenn mënul tetee jaan màtt ko incha allah képp ku jóg di la liggéey wala mu jóg di la jéem a yàqal incha allahu jaan moo koy màtt muy kaaraange ku am doole lool goo xamante ni sax ñi wun ko sax di ko defar di ko wane incha allahu dañ koy tënk rek képp ku si bëgg boolu jotee incha allahu ñu taxawal ko waaye nag ñu leen di wax ni képp koo xam ni bëgg nga ku la listixaaral yaa xam dangay dugg ci say yaa xam sa liggéey am ay jafe-jafe ak lépp lu jafe-jafe boo am boo ñu woowee listixaaral la bépp sarax bu si war ñu wax la ko waaye nag am na ay ndomba yoo xam ni dañu koy liggéey mu tudd foqet am na ay bayra yoo xamante ni bayra yi jigéen lay doon waaye nag ñu leen di wax ni képp koo xam ni dangaa nekk se place ñu lay jéem a yàqal bëgg la fa jële am nan si ay ñaan yu am doole yoo xamante ni boo ko jëfandikoo kenn mënu la faa jële incha allahu waaye nag ñu leen di wax ni am na ay ndomba yoo xam ni dañu koy liggéey mu tudd jëru ko lépp loo mën a def ci àdduna lu mbir ma coow la bari bari bari boo ko takkee mbir ma dina sedd guyu incha allahu am na ay ndomba yoo xam ni képp koo xam ni danga bëgg mucc ci mbiri yoon incha allahu boo ko takkee boo duggoon sax sa néeg incha allahu kenn sax du wax yow boo ko takkoon di jaay dara sax nin ko waxe doo jaral ndax kenn du wax ak yow incha allahu mu nekk ay kaaraanga yu am doole yoo xamante ni si mbiri yoon lay dox waaye nag ñu leen di wax ni képp koo xam ni bëgg nga bayra ñaa njaay mën nga noowoo waaye nag boo amee koo xam ni dangay bëggante ak moom ngir ab sëy rek ca yàlla tax boo ñu woowee ñu defal si ay ñaan yoo xamante ni incha allahu sunu boroom dina neexal seen sëy wala nga nekk ci sëy sëy ba bari ay tolof tolof incha allahu boo ñu woowee ñu taxaw la si waaye nag ñu ñëw ak yéen ci ñaan gi xam ni moo ñu taxaw a jóg tey jii mu nekk ñaan goo xam ni day dox si wërsëg wërsëg nag képp koy dox ci kaw suuf bëng ko sa wax na ni képp koo xamante ni nit ñu jublu si nañ la rek incha allah sunu borom mën na laa joxal def nga am wërsëg wu yaatu ndax kat nit yàlla du wàcc di jox kenn ci loxoom si nit ñi la koy jaarale rek indi ko si yow kon de ñaan gi mi ngi nii képp koo xamante ni bëgg nga ko jëfandikoo wala nga mën ko bind mën nga ko bind comme ni ñu la ko soo ko mënul soo ñu woowee dañ la si taxaw ak foo mën a nekk nag ñaan gi de mi ngi nii da ngay def bismillahi rahmaani rahim daal di julli si yonent bi benn yoon daal di bind fii jii di xaa cent fois soo paree nga bind qul yaa ayyuhal kaafiruuna benn yoon qul huwallaahu ba mu jeex benn yoon qul auusu rabbil ba mu jeex benn yoon naasi nga bind ko ba mu jeex benn yoon nga julli si yonante bi benn yoon incha allahu ba paree nga def ko saafara wu laaloy mbépp def ko si sangoo ko juróom ñaari fan incha allahu sunu boroom dina la sotti ay xéewal yu baree baree bari sa nit ñi tamit deeñu la jublu sa ñu leen di wax ni lépp loo xam ni indi nañ ko fii ba ma leen ko gëstu nañu ko wala ñu garabu ko ba xam njariñ li li si am soo ko indi fii di leen ko wan kon ñu leen di wax ni yéen ñu xam ni yéen a ñuy topp ngeen di woy di abonne di partage vidéo yi ca di ko aimé jërë ngeen jëf